donc euh, et euh, ce Magal aura lieu le le 14 le 14 octobre euh, à Touba. C'est un événement également qui regroupe beaucoup de de de, de pèlerins. Et comme je l'avais dit tantôt, tantôt c'est nécessaire qu'on ait une préparation à la hauteur de l'événement. Et euh, c'est pourquoi également on a réuni l'ensemble des services concerner euh, principalement les service de sécurité, euh, la police, donc euh, dans les dispositions et qui est à accompagner l'avènement. Toutes les dispositions, aussi bien sur le plan effectif que euh, sur le plan matériel, seront prises donc pour euh, accompagner ces événements, cet événement. Donc pour les sapeurs, idem, le dispositif habituel sera mis à disposition et que quand même la couverture sera assurée. Euh, sur le plan santé, euh, il y a une assurance euh, par rapport à cette couverture-là, parce que le même dispositif sera maintenu. Euh, un point avancé, donc pour les, la prise en charge de certains cas, sera implanté. Et euh, ce dispositif-là sera accompagné également par la Croix-Rouge qui euh, prendra les dispositions donc, pour mettre un effectif assez consistant donc pour la couverture sanitaire. Valable aussi pour l'approvisionnement en eau. Euh, la demande a déjà été faite donc pour euh, l'accompagnement donc de 10 bâches et 5 citernes. On verra avec euh, l'OFOR euh, ce qui est possible d'être fait, mais quand même, euh, on euh, va tout faire pour satisfaire cette requête-là. Parce que quand même, l'événement est un événement qui Euh, qui, qui, qui draine beaucoup de monde et qui a besoin de cet accompagnement-là là, pour la satisfaction des besoins en eau. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais jusqu'à présent, euh, il y a euh, certains euh, gaps à combler. Euh, la mairie euh, de Touba va accompagner donc, pour ce qui est des, des produits de désinfection. mais aussi donc accompagner pour euh, les camions vidanges et également euh, éventuellement euh, la demande a été faite donc pour euh, le remblai de certaines zones donc pour quand même mettre à l'aise tous les tous les pèlerins. En ce qui concerne la Sénélec, il est demandé euh, quand même euh, de renforcer ou sinon d'améliorer la, la qualité de l'électricité parce qu'il y a souvent des basses, baisses de tension. et que quand même euh, le représentant de la Sénélec a donné des assurances par rapport aux dispositions qui seront prises donc pour améliorer la qualité mais également euh, faire tout le nécessaire pour euh, que les pèlerins soient dans de bonnes conditions durant cette période-là. Euh, le suivi sera fait euh, par aussi bien le comité d'organisation que les autorités administratives aussi euh, au niveau des, des services techniques. Globalement ce qu'on peut retenir euh, par rapport à ces deux événements. Et nous prions euh, pour qu'il nous vraiment euh, donne la santé, la force, euh, mais également la présence d'esprit. Donc pour euh, faire tout ce travail-là, parce que euh, ce n'est que bénéfice pour nous, bénéfice aussi pour la nation tout, tout entière. merci beaucoup. bu Touba Janatul Mahwa waa kër Cheikh Cheikh Ibra Fall événement bu mag ba nga xamee ne que aussi euh, chaque année lay am at mu nekk lay am et bii at mi nii le 14 octobre lay lañ koy def euh, muy laaj accompagnement sur le plan sécuritaire la police euh, nga xam ne c'est domaine de compétence am la moom nee na dinañ jël toutes les dispositions aussi bien en homme mais également matériel pour mën a couvrir événement bi sapeur pompier aussi kazalika euh, ñoom aussi dinañ jël leur disposition pour mën a mettre des hommes fii nga xame ne que moom nañ ko war a def yëpp pour euh, mën a vraiment améliorer la couverture sécuritaire waa santé aussi euh, maanaam médecin chef de district également en rapport avec la Croix-Rouge dañ mettre un point avancé donc pour mën a vraiment couvrir sur le plan sanitaire Euh, événement boobu euh, approvisionnement en eau nag euh, dañu wax ci biir waxtaan bi ne day faral di manquer ndox et que ñoom soxla woon nañu pour que OFOR accompagner leen ci ay bâche a eau mais également ci ay citerne loolu it dinañ ci kii OFOR pour que ñu mën a def suñu kéem kattan pour vraiment li nga xam ne mooy demande bi ñu mën ko di satisfaire Euh, mairie bu Touba nag moom euh, d'habitude euh, toujours day accompagner événement yu mel ni et que dañ koy kiiwaat comité bi daf koy kiiwaat pour que moom mu jàppale ko pour produits désinfectants yi mais également lépp la bépp accompagnement bu mu mënti def am na ay zone ya nga xamee ne que fi mu ne dañu am ndox ñoom ñoo ngi laaj maire bi pour que suñ ko mënee pomper aussi rembler ko pour que ñu mën a vraiment am Euh, cérémonie bu mucc ayib donc euh, globalement daal mën naa wax ne que loolu nañu tënkoon si euh, rencontre bi nga xamee ne que moom nañu defoon tey ñaari rencontre si sax laay wax moom nañu def tey et di ñaan yàlla rek yàlla may ñu fan et également may ñu wérgu yaram may ñu fekkee ak tal pour que ñu mën a yàgg si bés yooyu Euh, di ñaan yàlla rek mu doolu ñu sutura defal ñu jàmm parce que ñu xam ne que lépp li nga xamee ne que moom nañ ciy def euh, bénéfice la rek moom naa wax ne que sànq lépp rek bénéfice la pour ñun bénéfice la pour la nation sénégalaise jërëjëf. Euh, monsieur le préfet euh, de Mbacké euh, on vient une rencontre du comité préparatoire pour le Magal. Maam Cheikh Ibrahima Fall 2022. Alors nous nous réjouissons de, euh, de la manière dont on a conduit les débats. Le préfet a bien conduit les débats. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette réunion. Parce que tous les points qui ont été visités, n'est-ce pas, ont eu bonne écoute. Les différents chefs de service qui sont concernés et qui étaient présents ici à La Réunion ont tous pris les engagements qu'il fallait euh, par rapport à la bonne tenue de cet événement qui regroupe euh, beaucoup de monde parce que c'est un événement dédié à Cheikh Ibrahim Fall et à toute sa famille. Et quand on parle de Cheikh Ibrahim Fall, c'est Seigne Touba, c'est le mouridisme. Donc c'est un événement qui nécessite une bonne préparation, ce qui regroupe beaucoup de monde qui viennent, n'est-ce pas, euh, assister à, au, au Gamou. Et que nous avons, n'est-ce pas, passé du temps avec euh, les différents services qui ont tous pris des engagements de, en passant par la, depuis la sécurité à la santé, en passant par l'assainissement et tout. tous les chefs de service ont pris les engagements nécessaires pour la bonne tenue de, de l'événement. Alors nous tenons à remercier d'abord Monsieur le Préfet euh, qui a bien conduit les débats euh, en présence de son, du sous-préfet de Ndam qui l'a assisté et tout, tous les chefs de service qui étaient présents. Euh, nous remercions aussi au nom du comité d'organisation euh, le, le, le, représentant du maire de la commune de Touba, Serigne Abdoulahadka, qui a été représenté ici et que les engagements aussi euh, qui le concernent ont été pris et que nous espérons que tous ces engagements seront honorés parce que ça y va de la bonne tenue de cet événement qui est un événement euh, très grand après le Gamou. Donc on a l'habitude de, de, de, le célébrer avec euh, euh, toute l'administration et tous les parents, tous les amis qui sont là. Nous espérons cette année que aussi ça va se passer pour le mieux et que tous les engagements qui ont été pris seront tenus et respectés. Et toute l'assistance euh, a été Donc nous pouvons dire que vraiment nous sortons de cette euh, rencontre du comité préparatoire pour le Magal, euh, Mam Cheikh Ibrahim Fall 2022. qui a été initié par son petit-fils et disciple Serigne Bassirou Fall Arkhouran, qui a été représenté aujourd'hui par son fils aîné Serigne Gonda et toute la famille de Serigne Mbacké Fall qui sont ici présents. Merci beaucoup. Justement parce que d'abord c'est le Magal, ça commémore euh, euh la commémore la grâce ou bien la baraka, le jour où Serigne Touba Khadim Rassoul a accordé sa baraka à Cheikh Ibrahima Fall. Donc euh, c'est un, c'est un jour particulier pour la, la communauté mourite et pour l'islam. Donc euh, ça nous rappelle beaucoup de parce qu'on dit que l'islam, le mouridisme est né le jour où Cheikh Ibra euh, s'est prosterné devant Khadim Rasoul et, a prononcé ces mots qui nous fait entrer dans le mouridisme. Donc c'est un, c'est un jour vraiment qui appartient à toute la communauté mourite et par rapport à, à, aux aspects Euh, préparatoire, on a prévu euh, une, une conférence la veille. Euh, ce sera, n'est-ce pas, à partir de 17h, la veille du Magal. C'est organisé par les petits-fils de, de Cheikh Ibrahim Fall. donc, une conférence où le thème est déjà défini, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça entre dans le cadre de, de la vulgarisation ou bien des enseignements de Cheikh Ibrahim de, des rapports qu'il a eu avec Seigne Touba et tout ce que nous pouvons tirer euh, de cette euh, marche commune entre Cheikh Rafal, de ce qu'ils ont mis en place, Seigne Touba et Cheikh à savoir le mouridisme, euh, qui est actuellement qui est une doctrine basée sur des principes euh, fondamentaux. Euh, d'abord la foi en Dieu, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le respect de, de l'autrui, toutes ces vertus, toutes ces vertus-là n'est-ce pas, c'est des choses que, le mouride doit incarner de, toutes ces choses-là seront revues euh, pour que euh, chacun, tout, tous ceux qui seront là-bas euh, pourront, n'est-ce pas, sortir avec un enseignement, bien des choses qui pourront l'aider, n'est-ce pas, dans, dans, sa, dans sa vie, dans la communauté mourite, au niveau de la communauté mourite. Donc c'est des enseignements qu'on va tirer, n'est-ce pas, la veille. Ce sera animé par euh, Euh, responsables, d'éminents chefs religieux qui sont déjà désignés. Donc, euh, en tout cas, le comité d'organisation va, va, va, va, va appuyer sur cela. Donc, c'est la veille à partir de 17h là-bas la place publique. ñu ñu ñu def benn bis boo ngoon goo xam ne kii euh, dañuy def benn conférence boo xam ne sëti Cheikh yi ñoo ko doon taxawu mooy am na am na kuréel gu leen tënk ñu koy wax Jësbul Murit ñu ànd koog mbooleem ñi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom Cheikh Fall muy setaat yi conférence bi ñaare day aju si dañu daa tàmm tànn ay thèmes yoo xam ne thèmes yu jàngale maanaam Cheikh Fall ab liggéeyam ak euh, ni mu àndeek siñ Sëñ ak jamono ji fi mu toll euh, yooyu yëpp ñoom ñi nga xam ne ñoo yoru ñoo yor liggéey boobu saytu nañ ko ba xam nañ ni incha allahu daal euh, bis boobu muy buñ ne ëllëg la bis bi dinañ taxawu foofu bis boobu bis boo xam ne conférence boo xam ne lanu fay waxtaane njariñ lay doon ci njàngaleem sëñ Tuubaa ak Seera Faal dina doon loo xam ne képp ku fa teew da nga si jàngat loo xamante ne si lu lay jariñ la si sa wàllu ak taalibe ni nga war a doxale ak nit ñi ak ni nga war a doxale ak sëriñ bi loola ñoom waajal nañ ko te incha allahu euh, na mu war a mel dina ni mel ñi ngi si wow nag suñu bokk yëpp dañ ko daa tudde nag euh, at mu jot dara jaale ko kenn si ñi ñu bokkal yoon wi loolu nag euh, sayt teewluwuma ren ku nu ko dara jaal euh, sëriñ sëriñ Mbayloo waaw sëriñ Mbayloo mu Thiès waa kër sëñ maam Mbayloo mu Thiès te sëriñ Moustapha Lo nekk jëwriñ ja mu doon koo xam ne kii sëriñ Babacar Lo euh, moom Cheikh Rafal moo ko moom la fekk si woon Thiès ñu am histoire bu bari bu ñu dund ñoom lañu ko dara jaale ren xam naa di waxtaan ci diggante boobu ndax diggante la boo xam ne suñu sa waxtaanee diggante Cheikh Rafal ak sëñ Mambay Lo taalibe yi dañ ci mën a jàngat loo xam ne dinañu jariñ ci lépp luy dundal sunu taalibe kon ñu ngi si woo ñëpp ñu teew fa incha allahu xam naa buñ ne ëllëg la muy le treize si à 17 heures euh, Serigne Gana Messere Mokhtar mooy def conférence bi euh, waxtaan yi tamit euh, ñi nga xam ne njabootu Cheikh Rafal gépp danañ fa teew incha allahu su ko defee ñu matal waxtaan yi loolu daal mooy li nga xam ne waajal nañ ko ngir njàngaleem la ñu mën a jëlee si bis bi ndax loolu dasee am solo lool <laughs> waaw. mu lay nuyu bu baax di nuyu mboolem maanaam ñi nga nekkal ci bureau bi ñëpp rek ak kenn ku ne ak sa taxawaay di ci sant yi cant goo xam ne maanaam lu tey rek la <clears throat> jiitu woon na tey di ci sant yi ci teewaay bi nga xam ne teew nañu fi te suñu borom dogal maanaam ñu fekke waat ko hmm, te saa yoon ko fii defee it. nii ngeen nu ko nangule noonu ngeen nu koy nangule waxtu wu ne te kenn ku ne da nga ci jël engagement boo xam ni la nga wax ak ñun fii soo ci jógee da nga daal di taxaw ca taxawaay boobu ba nañ ko bëggee noo amee ko ni ndax sëñ Bassirou Fall mais moo yore màggal gi lépp ci loo xam lay jaar waaye mosuma dégg mu jàmbat saa yu ñu fi teewee ba jóge fi rek ñun ñëpp dañuy maase sant kon day mel ni kon li ñu waxoon fii kon lépp jàllale nañ loola kon leen di sant nag ci loolu ndax fu mbooloo daje nag fu mën a doon fu ne moom <clears throat> seenu taxawaay rek moo fay gën a am solo gannaaw yàlla suñu borom ndax mm, seen seen loxo la ko suñu borom jaarale muy kaaraange gi ak mooy jëfandikaay yi nga xam ne doomu aadama fu mu nekk mënta mënu ko faa ñàkk a jëfandikoo <clears throat> ci bépp anam bu mën a doon ci seen loxo ko suñu borom jaarale ñu war koy sàkku ci yéen kon nag ngeen ko yombalalee maanaam ba jataay bi man di am waxtu wu ne te li ngeen wax ak noonu ngeen di ko def loolu kon noo ngi ciy santaat baax a baax sant it Abdou Lahad Ka maire bi moom wax naa ko léegi ne ko moom bis bisama ndax dëkkandoo la ñoo dëkk seeq lépp it moom itam noo koy sant sant it mboolem autorité yëpp rek sant nag njaboot gi nga xam ni ñoom ñoo yore màggal gi euh, sëñ daam soore mi ak sëñ bas mi ak sëñ naar jenn mi sëñ Cheikh Fall ñoom ñi ak sëñ xaarim Fall ak mboolem njaboot gi sëñ ba alxuraan gépp rek ak taalib yi ñëpp rek noo ngi sant ñëpp ndax at mu jot ni fii fii la ñuy daje te kenn ko ne da ci jàpp-jàppin woo xam ne dana jàll ba niñ ko bëggee lépp nu amee ko kon nag noo ngi leen di sant bu baax suñu xool na seet na baax yàlla na leen saa borom defal dégg ak topp saa borom yokk seen garaat nag ci gën koo kaweel saa borom defal leen karta ngeen lépp loo xam ne naal ngeen ko ci liggéeyal askan wi suñu borom jox leen kattan ko yéen ko manee ndax askan bi rek fi nekkal nag waaw lu mu doon yéen rek lañ koy sàkku ndax yàllaa dogal loolu ci yéen ñu war koo sàkku ci yéen waaye nangul ngeen ko ndax jataay bi rek doy na sëkk te rafet na rafet goo xam ni ah, sunu xel dal nañ ci baax a baax kon nag jërë ngeen jëf sant nañ baax rek dal nañ ci àgg ak jàmm nag su borom defal na ci ngër